fait, en je pense que le discours du président, euh, déjà, contexte d'insécurité, région bi nekk fa la ko tàmbale ak l'insécurité au niveau mondial. Euh, tout à l'heure analyste jot a wax surtout venant de l'opposition mettuñu foofu le doigt souvent on parle de liberté mais liberté et sécurité il faut souvent mettre les deux ensemble pour mën a apprécier n'est-ce pas le contexte Euh, Sénégal dëkku liberté la boo xoolee dëkk bu mel ni France ñun ñoo ko ëpp ay quotidiens yuy génn euh, y a au moins beaucoup de rajo au Sénégal am beaucoup de sites internet wax sa xalaat dara du la ci fekk maintenant entre wax sa xalaat ak tooñ y a un sillon souvent que les gens franchissent euh, parce que mën nga wax sa xalaat diffamer nit mën nga wax sa xalaat tooñ état mën nga wax sa xalaat mais glissement bi ngay def ba dugg ci leneen loo xamante ne wute nag liberté d'opinion foofu je pense que c'est bien réglementé euh, c'est bien euh, c'est bien clair euh, kon Sénégal dëkku liberté la il faut ñu xam loolu ndax justice comme ni ko monsieur le ministre Pape Sagna waxee sànq quand la justice bu dee jox na dëgg opposition opposition tàccu ah bu leen joxul dëgg ñu mer c'est comme un arbitre boo xamante ne saa yu siffler but boo dugalee but mu ne bii la nga kontaan boo encaissé bii mu ne bii la nga mer bon donc moo tax ba foofu quand même nañu reconnaître ne suñu dëkk euh, dëkku justice la te les juges yi àtte les magistrats du siège am nañ totale liberté d'appréciation sur la base des faits ou bien des témoignages wala ñoom ñooy xool critères yi ñu apprécié. mais man je voudrais surtout vous interpeller par rapport à la charge. maa ngi ciy ñëw maa ngi maa ngi ñëw ci moom. damay njëkk ah. tàmbale parce que liberté ñoom ñaar ñëpp dañ ko laal mook Maurice. parce que nee na di gargariser euh, de Wade tous ces projets étaient déjà ficelés et financés. dinaa ñëw ci Kalidou Kalidou euh, monsieur le ministre. je pense mais Kalidou sax moom il était à l'APR lan moo xew kañ ngeen divorcé. waaw waaw. Ah, vous n'avez jamais été dans l'APR. bon vous aviez annoncé votre ralliement. de ah j'ai été avec le président la je, de la paire s'il vous plaît. moi ah, je, m'attendais à ce que. ne confondez pas le secrétaire général de la paire et le président de la. République. non vous aviez dit que je ne je pas à la paire je réponds à l'appel du chef de l'État. j'ai été appelé de ma. je le suis pas à paire. je m'attendais même <laughs> à ce que. je n'ai jamais été à paire. Ah, je m'attendais à ce que moom en tant que. ancien ministre de l'éducation et ancien syndicaliste mu apprécier les efforts yi président def dans euh, ci ci ci rémunération enseignants yi. ak prise en compte yu bëri. je pense que loolu au moins war nga ci bëgg kontaan nga ci. voilà donc loolu c'est important. Et, euh, tout à l'heure Maurice a parlé d'infrastructure bon Sénégal nag beaucoup d'intellectuels dañu nekk Ndakaaru duñ dem souvent au fond du pays tey ji pour dem Casamance. en quatre heures cinq heures de temps yaa ngi Sédhiou pourquoi parce que tu as deux ponts le pont de Foundiougne ensuite le pont bi lay yóbbu Gambie bi ngay bi ngay jéggee Gambie pour dem yooyu ça a été réalisé par le président Lapid benn boo xoolee tey le plus grand projet routier du Sénégal routier laa wax c'est le désenclavement de l'île à Morphée plus de six cent kilomètres de route tey ji booy dem au Mali arrivé à Tamba tu as deux options par l'axe sud nga jaar ñokkalu ko baa génn yaa ngi Moussala nga dem au Mali par l'axe nord bi ak par rapport euh, oui c'est pour lui dire que infrastructure yi muy wax ah le ah. président a a a radicalement changé le modèle colonial bi ñu fi fekkoon parce que il faut aller à l'intérieur du pays pour xam ce qui a été fait en termes euh, d'investissement sur les routes les hôpitaux tey les hôpitaux régionaux même les aéroports régionaux la dizaine d' aéroports yi nga xamante ne yenn yi pare nañ yenn ñu ngi en chantier fan la nekk à part AIBD <laughs> bi nga mu ngi jas aéroport yooyu ñu ngi dans l' intérêt du pays donc yooyu c' est important ñu koy wax parce que aussi moi j' estime que euh, Sénégal Ila Touba bi ngay wax noonu déjà ça a permis de désenclaver beaucoup de choses tey booy dem Matam je pense que c' cinq heures de temps facilement mën nga ndekkee fii añee Matam yooyu ça avant 2012 kenn xam xalaatu ko parce que il faut ñuy apprécier ni ce qui a été fait à Dakar buñ ko defuloon day day day day gën a graaw parce que un quart la population s'est agglutinée à Dakar c'est un fait qui est là historique donc mënoo tëb rek corriger ko Diamniadio n'existait pas Diamniadio existe des investissements de plus en plus day dem vers Mbour le département de Mbour Diass donc sauf que sauf que à à à Diamniadio vous êtes amalé les pieds vous avez injecté plus de milliards euh, euh, la ville ne prend pas forme les Sénégalais n'arrivent pas à s'y installer Diamniadio dafa nekk un point de rupture d'ailleurs entre Dakar et le reste Diamniadio les infrastructures ñu dem Diamniadio les ministères et les fonctionnaires de l'État du Sénégal ils ont d'énormes difficultés de transport de restauration euh, d'accès aux de plus en plus les investissements sortent de Dakar Dakar aussi il y avait des urgences à régler en termes de mobilité et il fallait que le président Euh, jël disposition yooyu donc souvent aussi bu ñuy apprécier globalement euh, Covid 19 à part la crise de 1929 le monde n'a pas subi un choc aussi important bu ñu fàttali ne Covid bi bi mu fiy nekk avion naawatul presque les les relations internationales les échanges entre les nations étaient plombés mu am ay impact sur les taux de fret les taux de fret ñu passé pratiquement du simple au quintuple donc tout ça c'est des c'est des impacts c'est un choc violent est-ce que le Sénégal a bien résisté à ce choc oui si pourquoi ñu résister parce que avant le, la Covid les, les fondamentaux dañ ko jëloon en compte donc souvent aussi man damay bëgg bu ñuy apprécier ñu apprécier globalement maintenant euh, chaque fois que le président fait de bonnes choses nos amis du PDS dañuy naan c'est l'héritage de Wade président de la République dans son discours il a rendu hommage à ses prédécesseurs président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade l'État est une continuité mais le président Macky a beaucoup fait dans un contexte mondial dégradé avec une sous-région boo xamante ne jàmm amatu fi tey jii boo demee dëkk yu ñu wër yëpp dëkk yu fragile la à l'échelle mondial boo demee en Asie ñaari Corée yi xam nga lu ci xaw li ci li ci xew Ukraine xam nga la fa xew donc fi ñu jëm Séné moo tax Euh, deux mille vingt quatre bi ñuy dugg war a tànn benn njiitu réew bu wuteeg président ndax président nee na moom du dem il faut ñu xam ne euh, jiite réew dans le contexte actuel du affaire bu simple. pourquoi parce que tey jii le monde court vers des crises yu gën a tàng la Covid parce que tey jii contexte mondial bi contexte bu incertain la crise ukrainienne bi kenn xamul fu mu mujj Taïwan Chine États-Unis kenn xamul fan lay mujj. waaw dans un contexte pareil mondial pareil il est important que ñu def très attention ci yenn discours yi. il faut les, les gens du PDS ils avaient il faut relativiser ba tax na man. <laughs> vraiment c'est un discours waa PDS dañoo foogoon ne après Wade c'était le c'était le déluge. oui mais le président Macky a a a a montrer quand même une résilience tey jii à l'échelle mondiale euh, même le non-alignement africain pendant la crise ukrainienne il fallait courageux parce que président Macky Sall mu ngi doon présider. l'Union africaine bi crise ukrainienne jollee l'Afrique ne s'est pas alignée sur l'Occident l'Afrique ne s'est pas alignée sur la Russie l'Afrique a opté une position de neutralité <coughs> boo xamante ne c'est important ñu xam ko ba tax na kon moi je pense que le président de la République il a bien travaillé pendant ces ans mm-hmm. indicateurs yi wane na ko rien que le budget qui passe de mille trois cents à sept mille milliards euh, lu lu am solo la la croissance malgré la Covid on a tenu le ba croissance bi ñu am ci dix dernières années yi qui est de cinq virgule cinq pour cent c' est largement supérieur à la croissance bi ñu am ci année yeneen année